yéen ñi topp 24actu.com invité de la rédaction tey nag ñu fas yéene ànd ak euh, Mory Gueye nekk responsable politique APR fii ci Touba waaye tamit bootu ci ginnaaw soxna maam Xari Mbàkke sëriñ Mory ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. waaw ñu ngi lay fay di la ziare bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di leen ñaanal suñu kàddu fekk leen ci jàmm. wax naa ko ci bi mooy ubbi euh, responsable politique APR nga ci Touba bootu tamit ci ginnaaw soxna maam Xari Mbàkke lan mooy tolluwaayu parti bi ci diwaan bi. waaw dañuy e, sant daal ci daal bi nga ñu dalal tey ak e, fas bi fas yéene waxtaane li ñu nekk ca muy politique fas yéene waxtaan itam tolluwaayu parti bi ak doxin wi ak li ñu fas yéene waaw tolluwaayu parti bi de mooy fas yéene def ay yëngu ci dëkk bi ak ci biti dëkk bi leeral askan wi dëkk dëgg liggéey bi nga xam ne président Macky Sall def na ko fi ak li mu fi yéene defaat buñ ko falee. yéene ngeen toll wala ci jëf. ci jëf lan ngeen fi jëf ci parti bi fii nii ci diwaan bi. waa diwaanu Touba nag président Macky Sall moom li fi jëf man nañ ni euh, du lu ñuy xool ndax di ko gis dangay làmb sax di ko daj. ah bon boo gëmmoon say bët di làmb da ko daj. est-ce que sénégalais yi lay seetaan duñ la mere. lan moo war a tax ñu mere ma. ah nga ne président def na Touba te président mun ta fexe ba gagné Touba déjà. waa xam nga loolu loolu gagné Touba laneen la ak ñàkk gagné Touba laneen la. mais day mel ni li muy jëf feeñul de. loolu moo tax ñu bëgg a jóg wax leen ni leen mi ngi jëf mi ngi jëf. loolu am nañ ci ay témoignages yu leer te mën nañ ci indi ay preuve yu leer. yéen ñi ko fi nekkal lan ngeen fi def loo xam ne xëy na askan bi mën nañ ci teg loxo. waa ñun euh, ay citoyens lañ ànd ak Sall lépp loo xam ni suñu ko ko joxoñee mu def ko dana doon njariñam ñu joxoñ ko ko. mais ñun ñàkk mooy moo tax ngeen di inaugurer ay douze sa leader ki nga àndal. waaw ah noo xam nga inaugurer ay douze loolu baat la boo xam ni. Euh, nit ñi nga xam ne ñooy diaboliser politique ak di sakk ay jëf ñooy ñooy. inauguré leen ay douze. ñoo xeeb loolu. est-ce que inauguré leen ay douze mooy oui ou non. cest dire boo ne inauguré wuñ ay douze soxna maam Xari Mbàkke man moom lay àndal. waaw ah, soxna maam Xari waaw moom la ñuy jiñ ne dafa inauguré ay douze. moom li mu def ci Touba. immigré ay douche moo ci gën a tuuti. mais ñu bëri ñu ngi koy ŋaañ est loolu tamit jàppee ko ndax askan bi ak euh, Sénégal réew mi fi mu toll. dama bëgg nga bàyyi nga déglu ma tuuti. réew mi fi mu toll est-ce que loolu tamit du nax askan bi ñu am nañu yeneen. yoo xam ne moo gën a amal solo nit ñi dama bëgg parce que ñañu ko defal ñañu ko defal ñoom xeebuñu ko ku xeeb douche yaa ko xeeb par exemple mbooloo mi mu àndal liggéey am ñu ne ci ab gox wax ni ñoom day fa ñu nekk yittewoo nañ ku leen defaraatal seen toilette ya mu ni leen danaa leen ko defaral bis ba ñu ko defaree ba pare nit nag bu joxee alalam joxe alalam ñu de ko def ci mbir bis bu ko kam ko doon jox àggalee sañ na ni ko nañ dem ma xool la nga ma doon defaral mu ñëw fa xool ñam ko doon defal génn mu def benn point de presse ñu sant ko gërëm ko parce que taxawaay bu rafet la. jàppoon na mënoo ko woon a def ci suuf am na yeneen yoo xam ne xëy na mënoon nañ koo gën a médiatiser ka loolu wala. lan luñ gën a mañ médiatiser liñ médiatiser bari na loolu dama ne dañ cee tànn boobu mais soxna maam xari li def ci dëkk bi kenn mënu koo toog di ko lim benn par benn. ah bon ca man xam naa ci leer parce que dama cee ànd. def na ci dëkk bi ci dëkk bi. lu weesu xuloo ak moroomi mbàkke mbàkke. ah non xam nga xuloo ak moroomi mbàkke mbàkke mi loolu ça di dire que man boobu debaa du doon débat boo xam ne mën nañ ko. mën nañ ci yaatal man ak yow. déet mais boo ko yaatalu te ñu yaatal ko ci réseaux sociaux yi mu dem ba tas. waa réseaux sociaux. vraiment bu boobaa egg na foo xam ne tamit. Ah? waa réseaux sociaux yi li ñu yaatal dafa am loo xam ni man ci laay sukkandiku parce que kañ ni moom la doon xulool kañ ni moom la doon kooku toog na soxna si toog seen kilifa toog ñu wax ca ba gas wax ja teg ko suul kooku man du ma jotaay. d'accord après euh, bon. taalibe ndaw laa ñaare mooy. Mm-hmm. Euh, loolu fitna la joxante bi ni mm. gas nañ ko ba mu mm. ñu suul ko. voilà suñu borom subhanahu wa taala dafa rëbb ko yeewaat wax nga ma ay activités yoo xam ne yéen a ngi koy def euh, APR fii nii ci diwaan bi euh, ndax jamono ji tiitu leen ndax élection yi nga xam ne moom la ñu jëm ak bouleversement bi nga xam ne moo am ci seen parti bi ndax seetlu nañu ne bëri na ay ay euh, leaders yoo xam ne ñu ngi dem fii ci diwaan bi. waaw dëgg la Moustapha Seck sama xarit la. maa ngi koy mettitlu loolu nag demam man personnellement. maa ngi koy mettitlu. est-ce que tamit <laughs> teewu leen ko. parce que élément la. lu tax teewu leen élément bi nag. bu baax bu gën ko amee da koy téye. élément la bu ma bu fekkonte ni man sama baat man na ko fi téye Moustapha du dem. yow boo sañoon Moustapha Seck dafa waroon des APR. dafa waroon des APR. parce que ndaw la ca def na activité. yi man ak lim mënul ci biir parti bi ça veut li ko naqari ba tax mu dem man xawma lu mu doon mais su ma sañoon day des ci parti bi. boo sañoon mu des ci parti bi. benn kartam boobu rek man xeebuma ko ci biir parti bi rawatina nag. ku toll ni Moustapha ak ñam àndal. ci question bi muy euh, jamono ji ndax tiitu leen ci élection yi parce que gis nañu nit ñi dem. non non bu ma sukkandikoo ci li sama leader def ci dëkk bi man bu ma sukkandikoo ci li soxna maam xarit def ci dëkk bi man damay jàpp ni APR. dafa amaat beneen kanam bu bees. fii ci Touba fii ci dafa amaat beneen kanam bu bees c'est-à-dire. loolu leeral ko ñii seetaan. li ñii seetaan mooy euh, dafa am activité yoo xam ni askan wi ñoo ko moom am loo xam ni ñi falan président Macky ñoo ko moom parce que président Macky Sall ñett ñii rek la am mooy ki ko faloon ak ki ko ànd moom nga xam ni du ma ànd ak moom ak ki nga xamante bi ni ànd moom. ca bi muy commencé liggéey gis na ni li muy liggéey ñor na ko ñooñu nag maam Xëri Mbàkke daf ciy liggéey. gërëm ko wala. ba ñu gërëm ko. ko ko gërëm. mën naa sitel ni la. wutal na leen financement yooyu ba pare may leen ko rek. ah bon. lu jege cent groupement yoo xam ne man maa ko monté ji. mais li nga wax ni yéeme na de. jox leen ay gaal. ay gaal. jox leen ay laytaay jox leen ay carte organiser leen administrativement. ba gaal ga kenn ku ci nekk di man di jël ca gaal ga di liggéey di pour pourcentage bi dellusiwaat ci biir gaal ga. ca loolu bu doon ci banque la man def naa pré banque. Mm. jiite naa ay mouvement luy bëgg jigéen quinze au douze mouvement mm. yoo xam ni bi ma leen jëlee ay prêt mm. financement bi war naa ma 60 nangam millions. xaalis boobu maam xarit daf leen ko may. 60 nangam millions laa wax ne la. groupement yooyu bi ma leen lebalee xaalis ci banque. 60 nangam millions liñ leen lebal lépp mat na ko. bi ñu fayee ba matal bi ma calculé ñoom li fay teg nañ ca pourcentage lu bëgg jege presque 30 mm-hmm. ci programme boobee ñu amoon ma amoon te ñooñu noonu ne bi soxna maam xarit def nii pile 30 millions yooyu war a dellusiwaat da waroon dellu ca gaal ba day dellusiwaat ci biir askan wi. mbirum xaalis fan ngeen euh, soxna fan lay jëlee xaalis parce que souvent dañ ko ci tuumaal ci wàllu xaalis ba ci parrainage yi ñu ne daf daf ko ah, man day wax dëgg yàlla gaal yi may monté ji nii gaal yi may monté ji nii. ñi ma ko ñi ma koy monteel mooy ñi ma joxoon seeni fii si parrainage ñoom laa jox woon joxuma leen benn dërëm li ma digg woon ak ñoom su ma leen ma joxe seen parrainage amul xaalis ma jox leen ay fiis ñu monte ko soxna si bi mu ñëwee ñooñu lay njukkale gaal yi ngir bëgg ñu continuer liggéey kenn ku ma joxoon sa fiis koo xamante bi du du du du du la ma la ma door a teganteeg yow ci sa loxo ci xaalis mooy gaal yi ma dem monté law ci gaal yi li soxna si jublu mooy organiser leen bañ ba dërëm mag ñaar dërëm yi ñu am seen njaan-njaan ñu mën koy denc mu bañ a yàqu. wax voilà ñu wax tuuti ci actualité nationale bi xam naa dinañu laalaat tuuti foofu noo gisee tolluwaayu réew mi mi ngi dox wala doxut. Sénégal waaw <laughs> Sénégal bu bu ci mag bu fekkonte ni 12 euh, ans yi fii président Wade def. ak euh, la ko jiitu woon euh, programme bii Macky Sall am moom lañ amoon Sénégal romb na fii bu yàgg. kon suñ la déggee mooy programme bu fu mën dem bu Macky Sall moo ko gën ci say wax. waaw loolu mooy li wér loolu mooy li wér. parce que parce que programme. bu baax président Wade programme yu baax la fi tegoon yu mu daan dox mais président Macky Sall dafa ñëw bàyyi xelam ci programme yi mu fi tegoon ba pare améliore ko yokkaat ci leneen. pour que mu gën a dox mu gën a baax. li ci yokk. bari na. limal. Euh, PDG bi Macky Sall moo ko ci yokk soo demee ci monde rural bi. lan ban coow la ndal. Ah, ban coow la ndal. pe xaalis bi lan. xaalis lan xaalis boo xam. non àndal ku ne xam na ko. parce que bu fekkonte ni PDC dafa amul njariñ. wala dafa baaxul wala programme bi baaxul président Macky Sall bu delluwaatee France di wutiwaat xaalis kenn du ko jox xaalis. teg loxo. Touba moom buñ koy wax bu ñuy wax Touba moom. Hmm. bu ñuy wax Macky hmm. wax dëgg yàlla man xam naa lu mu def Touba. parce que assainissement. hôpital niveau 3 bi nga xam ne nee nañ sengee sax naaw na. non hôpital niveau 3 loolu bëgguma ci sax détaillé. Ah, lu tax loo xam ne soxal na askan bi nit ñi bu eggee nit ñi war cee faju kay. yéene parce que yéenewu yéenewu président Macky Sall. moo doon ci ini yi muy intégré ci ci programme yi ñu intégré lu tax loolu lu tax intégré wu ko. mais am na gàllankoor. am na gàllankoor bi mhm. lan la a baax ne. est-ce ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen ko fi nekkal fii ci Touba. non non non non. gàllankoor bi nekk. non ci dëkk bi la. ci dëkk bi mooy lan non bul accuser waa dëkk parce que boo nee dëkk bi da ngay dugal ñeneen ñi fan la gàllankoor bi nekk nee nga am na yéene ngir def ko mais boo nee dëkk bi rek. programme bi bi président Macky Sall tegee xeer wi Euh, li mu amoon yéene mooy buy immigré illa Touba bi immigré waale ko. loolu dèjà wax nga ko ba pare. problème bi fan la nekk waa. problème bi fi mu nekk. mooy problème mu dëkk bi ak euh, seen i pour cent ak seen pour cent ak seen i nangam pour cent. ñeent pour bi rek. ne dëkk bi moom sëñ bi da ngay laxaale ñu ci bokk dëkk bi xadim yi ci la bokk man ci laa bokk keneen ci la bokk mais waa dëkk bi kan la ci. gis nga hôpital niveau hôpital niveau 3 bi bu président demee ba xam ni financement bi fi ñu ko jaarale woon. ak xaalis bi fi mu jaar. mënul mënul mënul defar mënul defar hôpital. kon dañoo luubal xaalis bi. xaalis bi xaalis bi moom saaw na moom. beneen beneen opi beneen beneen hôpital beneen budget la président génnewaat pour taxawal hôpital ci boo fa demee fii ma toog di wax ak yow nii. da xam ni programme bi président Macky Sall teg ci hôpital ba. fii ak 2020 danañ indigré hôpital. d'accord mais budget bu njëkk bi ñu génnewoon an xaalis bi dañ koo luubal wala fu mu jaar. waaw ça veut dire ça mooy programme bi teg ko ak ñi liggéey bi tegewoon ci seen loxo lañu ko lay ak lañu ko wax. méngoowul ak la président bëggoon. la ko wax ak la ñu ko ñan la ñan la. ñi ñi ko yoroon. ñan ñoo ko ñan ñoo ko yoroon mais xamuñu il faut xam nga aussi tamit bu ñu toogee fii il faut ñu leeral ñi nga xam ne ñooy seetaan. manuma cité ay tur. ka kii la wala kaa la. nga ne waa dëkk bi bëgg cee laaxaale ñëpp tamit. parce que dafa am loo xam ni. dafa am loo xam ni man mënuma cee cité ay tur kii wala kaa waaye fii ma toog dox ak yow daal. bi président xamee. waaye waa dëkk bi rek ñu hôpital ba financement bañ ci defoon ak yéene jëm ci amoon sottiwut mm. moom jëlal na ko en charge téyel ko ci loxol boppam mm. maa nga hôpital baa ngay dem fii ak 2020 da nga gis hôpital bi mm. bu njëkk ba ñu bàyyi noonu daal ndax naax saay na daal bu njëkk ba daal moom bu njëkk ba daal moom ñi may seetaan nañu bàyyi xel ni bu hôpital amut nañ ko jeexi faneen mais bu kenn jeex ci président de la république la ko ca waroon defal d'accord parrainage bi euh, waaw nee nañu nag fi mu toll ñu bëri nag euh, président daf ko def pour caler yenn candidats yi waaw xam nga parrainage moom moom daa daa ñëpp dañoo war na daje bu fekkente ne bëgg nañ Sénégal parti politique yi bu fekkee bëgg nañ Sénégal dañoo war na daje organiser am ndaje sargal ci président Macky Sall. parrainage bi nga xam ne candidat yëpp téye na leen. gars yi kan président fi mu toll day tànn ñi muy jàkkaar lool. non ta déedéet askan wi ñooy tànn ñi ñuy parrainel ku mënut am pour cent. ku mënut am 1 pour cent bëggoon ñu defaral la 6 millions 500 bulletins. loolu valoriser ko xool ñaata la woon sama xaalis la. koo xam ne mënoo am 1 pour cent ba pare ni man candidat la am ku la ngemb nday aw njaay am ngemb la jox la 30 nangam million nga ni candidat la. ñooñu naan la kan lañ dafa am ñu fi ngemb. dama ne su fekkoonte laa ne mm. première lañu. mais président dani mm. askan wi mm. au lieu que may fob. soixante cinq six millions cinq cent bulletins di ko defal chaque candidat pendant cinq cent candidats wala wala wala wala wala wala cinquante nangam candidats loolu ma ko def damay def ay pari ay parrainage ku muntam pour cent voilà mais est-ce ne fi toll candidat yi ñu bàyyi ñoo gën ñoo leen di gën a jaaxal kay yi ngeen téye Sonko ngi fi de Sonko de Sonko daa garaw Sonko man ah Ousmane Sonko <laughs> Sonko kay xam waaw Sonko moom xam nga Sonko phénomène la. phénomène boobu moo leen moo leen yéem. yéen Sonko da leen a tiital di lu ne yéen ko koy sosal. Sonko moom jaaxaluma moom. lu tax te man maa la ko wax émission bi ñi seetaan ba xam ne. nga ne Sonko phénomène la ba pare ne jaaxalu la. non dama ne lu bees la loo xamante bi rek luy dooru ñëw ci bit nit ñi xam nga loolu ay ay message am ak yu mel noonu. ah mi ngi tegi paa wax ci candidat yi candidature yi fi mu toll jàll na moom ngeen war a jàkkaar loolu ak ñeneen a ñeneen mais parmi candidat yi Sonko moom waxal nga ko sa bopp nee nga phénomène la xam nga euh, Idriss Seck lañ naan woowee Moussa 7 pour cent. Sonko du am sax 5 pour cent. population Sénégal. déedéet kay maa la ko seen nga li ngay wax. maa la ko du am 5. bi nga ne du am ñaata. du am ñaata pour cent ca sax bu ko nit ñi xamoon dëggantaan. bu ko nit ñi xamoon. xam li li li na ci ginnaaw xam rôle bi muy joué. ci ci xam rôle bi muy joué xam li ne ci ginnaaw. am njàng ci moom. am njàng. livre bu lan. tëju un mois bind ay livre Sonko xamul dara. ci gaz beeg pétrole bi. bu xamoon dara du lim tuumal Mamour Diallo bu xamoon dara du ko tuumal projet boo xam ne tàmbaleegul sax ngay diw lekk na xaalis ba. mot de la fin eh, ñu ngi ci njeextalu jotaay bi. di la sant di la gërëm di sant mboolem ñi jàkkaarloo ñun ci waxtu wi. waaw population Touba population Touba nañu mobiliser wu mm. ànd. ca ubbi seen i bët ca déglu bu baax a baax a baax li ñu leen di wax ne président Macky Sall def na ko ci Sénégal rawatina fii bi di bu baax a baax a baax ñi ñu bokk di liggéeyal ñëpp di leen sant di ñaan site bi yàlla na ci yàlla fii ci Touba nekk tamit koo xam ne dafay liggéey ak soxna maam